émission bi yee RFM matin 7h40 sunu gan Abdou Lahat euh, Diakhaté salaamaaleykum. aleykum salaam Georges ñu ngi lay nuyu euh, di nuyu. Mohamed Aliou Mo di nuyu itamit euh, auditeur ak téléspectateur u. RFM matin di am yaakaar ne ginnaaw sunu mbokk siise siise yi ak ñi sant loo amuñu sañ-sañu jël seen kafe tey waxtaan bi ñuy waxtaanee. Euh, dina leen may ñu mën a tabbi ci journée bi euh, ci anam bi gën waaye tamit dina tax euh, buñ ci bàyyeekoo ñu mën a am idée yu claire ci li nga xamante ni moom mooy tolluwaayu réew mi. yow yaay euh, njiital euh, mouvement politique bi di lu jëm ca kanam nekk responsable politique candidat ca euh, élection locale ya ñu weesu nekkoon fa candidat ca Tëngéej ca Rufisque nekk itam executive manager en énergie et pétrolière pétrolières danañ waxtaanee lu jëm ci wàllu wàllum pétrole débat bi nga xamante ne war naa soxala askan yëpp mm-hmm. waaye itam dañuy waxtaanee li nga xamante ne moo gën a fës ci actualité mm-hmm. comme da ngay yëngu ci wàllum politique mm-hmm. foo féetewoo sax d'abord opposition nga wala euh, ñi ànd ak euh, waa nguur gi. waaw Georges question la ba nga xamante ne ni man dama bokk si ñi koy xeex. Mm. ndax dañu war a fexe ba nga xamante ne nii espace politique bi du doon espace ba nga xam ne dafay tombe ci li nga xam ne moom la ñuy wax une bipolarisation parce que loolu dafay doon un frein ci. Euh, diversité diversité. et li ñuy dëgmal daal mooy ñu ñëpp ñu mën a contribuer à la vitalité n'est-ce de notre démocratie. loolu effectivement dafa bokk ci euh, li ñu koy mën a may ñu mën a am xalaat yu wuute ku nekk bàyyeekoo ci boor bu ne ngir ñu mën koo songee nu ne. naka la ñuy casser cette euh, bipolarisation du jeu politique gis nañ ni depuis quelques années depuis que Idi mbi mu demee ci euh, Macky Sall finalement bipolarisation boobu la ñu am malgré le fait que. am na ñoom aar ak ñeneen ñi bëgg ñëw diversifier ak ñeneen ñi mais on a vu léegi nii mënuñu casser cette bipolarisation waaw loolu c'est c'est une c'est une réalité euh, malheureusement euh, euh, dab na suñu euh, développement politique ba nga gis ne tey aujourd'hui comme ni nga ko waxee mel na ni ñaari pàcc rek ñoo am ci wàllu espace politique gu Sénégal comme ni ma ko waxee léegi loolu nag man bokk naa si ñi yaakaar ne doonu li gën doonu li gën ndax démocratie dafa am la nga xamante ne ni bokk na ci démocratie plurielle moom la ñu war a dëgmal alors euh, euh, naka la ñu war a fexee ba. maanaam kase loolu euh, jumtuwaay bi si jiitu moom mooy ñu dellu sur les fondamentaux de la de la de la de la démocratie. démocratie dafa war a permettre bépp sitoyen sénégalais nga mën a am accès sur le débat public waaye tamit ñi war a jël seeni responsabilité ci vie politique gu dëkk bi ci démocratie ci évolution démocratique gu réew mi ñoom itamit euh, ñu fexe si jël seen responsabilité de la meilleure des manières et ci wàllu boobu Mohamed Alimou euh, dafa am ñetti euh, pàcc si société bi ñoo xam ne ñeme naa wax ak ñoom ci loolu bi si jiitu moom mooy les intellectuels man nag sama définition intellectuelle mën na uuteeg ñu ci bëri mm. ndax li ma jàppee intellectuel mooy borom xel mu rafet te sell waaye tamit làmboo dënn bu yaatu. Euh, ñooñu damay xaar si ñoom ñu assumer li nga xamante ne moom la réew mi di xaar ci ñoom euh, ci wàllu courage euh, ci wàllu itamit li ñuy tuddee maanaam fexe ba xam-xam. delluwaat fa mu nekkoon ci lii. est que jàpp nga nii ñoom dañoo démissionné déggatuñu ne wala dañoo ragal wala si c'est quoi parce que quand même <laughs> ils sont pas audibles. ils sont pas du tout audibles. et loolu lépp mu ngi ci démission am na ci ragal am na ci moo tax boo bàyyee xel ci li may wax léegi maa ngi wax ne dañu war a jëlaat seen mm. courage euh, ngir mën a participer ci débat ci débat politique bi parce que en réalité euh, jàmbur du ñëw defar réew mi du ñëw euh, delloo débat politique bi fa mu war a dellu dafa am ña nga xamante ne réew mi daf leen a tàggat dafa def ci seen éducation def ci seenu njàng mu jaadu bu ñu demee ba tollu fenn fi ñooñu itamit delloo réew mi Euh, as tuut ci la mu leen joxoon ci wàllu taxaw taxaw temm nag ci dëgg sax ci réew mi taxaw temm ci xam-xam bu wér euh, doon li nga xamante ni moom mooy suuxat li nga xamante ni moom mooy sunu euh, démocratie waaye tamit sunu entretenir sunu débat politique. donc mm. borom xam-xam yooyu dafa am solo ñu participer si waaye tamit Georges. Mm. ñaareelu kuréel bi nga xamante ne sañ naa wax ak ñoom te ma bokk ci mooy les acteurs politiques. les acteurs politiques aussi dañu jouer un rôle bu déterminant ci li nga xamante ne moom mooy le le le le fait que ñu retrouver wu dans un environnement assez clivant euh, ñoom li ñuy xaar ci ñoom mooy ñu mën a ràññee li nga xamante ne moom mooy le champ politique avec ce que j'appelle les intouchables de notre commun vivre ensemble muy wàllu tissu euh, social muy wàllu euh, diversité religieuse confrérique mais aussi ethnique mais sans oublier évidemment li nga xamante ne moom mooy sunu euh, sunu ay institution ndax itamit loolu moom mooy li nga xamante ni moom moo mën a permettre ñu ñëpp ñu mën a nekk ci réew mi te ku si nekk gis si sa bokk bopp ku si nekk kenn bañ a yëg ne dañu laa bedd ci réew mi mm-hmm. beneen kuréel bi nga xamante ne moom euh, itamit laay daanele mooy ndaw ñi euh, réew nag surtout réew mu mel ni Sénégal nga xam ne la population à plus de 60 pour cent ay ndaw lañu kenn mënul xalaat defar réew mi wala delloo débat politique bi fa mu war a tegu lu dul ndaw ñi jëluñu une prise de conscience une conscience élevée ci li nga xamante ne moom mooy seen rôle ah ci fii réew mi jëm ak aussi seen i responsabilité ci li nga xamante ne moom mooy euh, li ñu ni ñu war a taxawoo réew mi hmm. ndax euh, damay wax ne euh, réew bu tolloo fii dañu war a eh, dañu war a convoquer histoire réew mi ana naka la réew mi doon dundee démb waaye tamit bàyyi xel ci lan mooy lu devenir de notre société fan la ñu bëgg jëmale suñu Sénégal bu boobaa nag suñuy responsabilité dañu ngi pare pour assumer ko mm. ndaw ñi nag li ñu ci war a assumer mooy taxaw temm xamal ñëpp ne réew mi bii Sénégal nagu ndono la dafay jóge ci ay loxo jëm ci ay loxo te loolu ñoom ñoo ko war a garantir. fi réew mi jëm xëy na tiital ñëpp ndax xiiroo ki ŋaayoo yi fi nekk tension politique bi euh, tar lool ba ay nit tax doon woote jam te ba léegi ñu ñu ngi woote jàmm euh, ci discours à la nation njiitu réew mi ne ubbeeku na ngir waxtaan concertation ak euh, acteurs politiques yeeg les acteurs de les forces vives de la nation waaye faw ñu tënku ci état de droit ak itam samonteeg lépp li nga xamante ne moom mooy wareefu institution. élection euh, waxtaan woowu wuñ ci woy politique yi wala bokk ñenn ñi ñoom daal dañu jàpp ne c'est pas sincère de la part du président de la république euh, waxtaan woowu li war a am la wala déet. waaw Georges nga may moom euh, profito ci sa question boobu pour ndokkeel peuple sénégalais ndax dañu joge ci bés bu am solo muy 4 avril. ñuy souhaiter ñëpp rek semaine nu 4 avril bi ñu nekk mu doon semaine bu mbégte waaye tamit semaine nu boo xamante ne képp ku nekk si ñun da nga am mbégte am yëg-yëgu ne man mii kat Sénégal gi may bàkkoo sañ naa ko ndamoo waaye tamit mu doon la nga xamante ne war na tax ku si nekk si ñun bàyyi xel ci jumtuwaay yi nga xamante ne euh, moom moo war a tax ñu euh, unité nationale bi ñu mën ko consolider solidarité bi nga xamante ne moom moo war a doon lu socle de notre Euh, du progrès de notre communauté ñu mën ko consolider. alors euh, lu jëm ci discours de la nation bi euh, déglu nañ ko bu baax a baax mu doon discours bu am solo nga wax ko itamit le chef de l'État son excellence le président Macky Sall lancé un appel pour que acteurs politiques yi mën a retrouver autour d'un consensus wala bokk mu mën a am en tout cas une perspective si wàllu dialogue ba nga xamante ne ni danañu mën a apaiser la la la la n'est-ce l'espace politique. ah ñu bokk ci ñi nga xamante ne dañuy rafetlu loolu dañu koy rafetlu parce que itamit nag lépp lu ñu war a mën a euh, yoon wépp bu ñu war a mën a jaar ngir réew mi. Euh, li muy si jumtu li muy li muy dëgmal mu man ko mu man koo mu mën koo jekku yaakaar naa ne euh, jàmm moo si jiitu. yan ñoo ñoo war a doon contour dialogue boobu. waaw li si ëpp solo mooy dafa war a doon en appel sincère. parce que itamit nag am na fi amaat fi donc loolu itamit dafa nekk une responsabilité première de l'état central. en l'occurrence le président de la république mi nga xamante ne aujourd'hui moom moo euh, gàddu responsabilité boobu. te mu lancé appel boobu war na fexe ba teg un cadre ba nga xamante ne nii danañ bu ñu dégloo si dialogue dina fexe ba rassurer ces parties prenantes parce que itamit ñi ngay o gaa oote bi am na solo waaye tamit war nga fexe ba woote bi nga leen di o ñu dégg ci loo xamante ni dana dalal seen xel loolu responsabilité wu président la bu mu yem ci woote rek waaye na fexe mettre un cadre serein un cadre de confiance et un cadre qui puisse donner lieu sur des plages de convergence Euh, beneen responsabilité bi dafay jëm si wujju politique bi si si si si kujj gi. kujj gi ñoom itamit euh, comme ni ma ko waxee tout à dafa am une responsabilité bu ñuy xaar ci ñoom parce que itamit réew buy dox euh, dafa am saasu ne taxawaay yi ñu war a mën a amee. maanaam yéen. ñun ñëpp. Mm. ñun ñëpp yéen waa politique ñun ñëpp sénégalais yëpp rek. <laughs> waaw parce que yaakaar naa ne Sénégal. Mhm. Euh, euh, dafa nekk peuple bu particulier ndax mhm. ñun ñëpp ay def politique. Mhm. Euh, ñun ñëpp du moins am nañu un avis sur le débat politique. donc ba tax na cet appel à à plus de responsabilité dafay doon appel boo xam ne dañu koy adressé ñëpp. mais effectivement au travers de responsables des leaders politiques donc ñoom itamit ñuy xaar ci ñoom en dehors de. des actes politiques qu'ils seront appelés à poser parce que itamit politique dafa dafa dafa làmboo euh, lu ni mel hmm. euh, du ñu leen aaye duñu ñu du ñu leen tere wala du ñu du ñu am benn sikki sàkk pour nangul leen ne kuy def politique faaw nga mën a poser des actes politiques pour déstabiliser sa adversaire hmm. mais lii ci am solo mooy saa su ne ñuy bàyyi xel fii réew mi toll waaye tamit di bàyyi xel li nga xamante ni moom mooy les lignes rouges à ne pas franchir. c'est mhm. extrêmement important. dégg naa la ngay wax sànq il faut que peut-être ñu diversifier l'offre bu ñu casser bi bipolarisation du jeu politique euh, conséquence bi mooy ubbi permettre ñeneen ñi indi seen offre mais ci loolu def nga sànq constat nee nga. euh, peut-être euh, les intellectuels euh, <laughs> sentiruñu leen trop qu'est-ce qui s'est passé au Sénégal parce que quand même ku nekk xam ici il y a de euh, des sommités même je dirais qu'est-ce qui s'est passé pour que finalement on en arrive à une situation boo xamante ni genre prise d'otage de d'un certain nombre d'individus ñoo téye jeu bi finalement ñooy gouverner di yóbbu nit ñi fu leen neex. alors qu'est-ce qui s'est passé. pour que, les intellectuels soient marginalisés Mais il y a une il y a, phénomène assez brutal qui s'est qui s'est qui s'est mhm, qui s'est produit moo xew ci euh, Sénégal te benn réew mucc si muy li nga xamante ne mooy le prolongement de l'espace public à travers les réseaux sociaux mhm. euh, mu doon jumtuwaay ya nga xamante ne suñu réew wala boog sunu askan waajaluñu leen woon woon pour ñu mën a euh, ñu mën a peek bu baax a baax naka la ñuy jëfandikoo jumtuwaay yooyu ba tax na tey dafa nekk dafa nekk jumtuwaay ya nga xamante ne dañu koy utiliser lu ci bëri ngir déconstruire li nga xamante ne moom mooy euh, li ma doon wax léegi euh, les fondamentaux de de notre société euh, au contraire au lieu que ñu utiliser ko ngir contribuer de manière saine au débat saine au débat politique à telle enseigne tey boo seetloo li xew Mouhamed dafa am lu may ñaawlu mooy tey dafa mel ni sunu intellectuels yi wala boog politique yi yëpp seen intelligence bi yëpp dañu ko concentré wu ci li nga xamante ne moom mooy euh, le débat politique alors que nos urgences sont ailleurs tey euh, maanaam compétition politique rek xiiroo ko ngaayoo y a rien li nga xamante ne ñu ngi koy teg ci euh, loxoy askan wi te mu te mu leen soxal ci seen dundin et loolu Georges boo seetloo dafa feeñ sax si discours chef de l'État avant-hier man bokk naa si ñii ñii nga xamante ne bi ma dégloo le chef de l'État ba noppi am na jàpp naa ne am na lu bëri loo xamante ne le président de la république waroon na ci àddu euh, te te àggu ci euh, ñu ngi jëm ci li nga xamante ne moom mooy la production la phase de production euh, du pétrole et du gaz dans moins de six mois quand même lu sérieux la loolu war nañu ko waajal ci anam yu wér euh, te bés bu yàlla sàkk ñu gis ay manifestation yoo nga xamante ne wala ay jeexital yoo xam daf ñuy wan ne société bi am na Euh, taxawaay boo xamante ne wala boog am na loo xamante ne mu ngi feeñ te war nañ ko jooyanti si misaal tey ñu ñëpp ñu ngi xëy di naqarlu li xew suñu mbokk mool yi mm-hmm. diggante Kayar ak mbooroo euh, le président de la République si discours am wax na jëm ci àdduna ci contenu local gëm naa ne déclaration d'intention yi c'est bien mais il faut que nag à un moment donné qu'on au fond de la question ok le contenu local naka la ñu siy jubloo ban anam la ñu war a fexe ba nga xamante ne mu impacté sur le secteur primaire parce que itamit bu ñu waxee moolu Kayaar ak moolu euh, Mboro lii leen boole nga xam ne tey sunu mbokk nappukat yi nga xamante ne ñu ngi nekk euh, Kayaar ñoom dañu wax ne euh, si seen plage si seen fii nga xam ne fa la ñuy daanee seen doole bëgguñu ku fay dugal ngeen ngeen filet yi waaye. les filets dormants moom la ñuy wax mbaalu caas. Mm. wala mbaalu yuus suñu mbokk nappkat yi suñu mbokk lébuy tëngee ji xam mm. nañ ci bu baax a baax ma leen di nuyu au passage. alors alors que ñi nga xamante ne mooy nappkatu mbooro ñoom moom la ñu utiliser loolee moo leen boole waaw loolu boo ko càmbaree ba si biir lan lay wan mooy que y a une raréfaction. la ressource de la ressource. Mm-hmm. alors est-ce que l'État doit euh, laisser faire non. il faut que état bi dugg ci encadrer ñooñu dañu nekk en situation de détresse il faudrait que aujourd'hui à travers une politique n'est-ce pas une orientation sérieuse sur lan le contenu locale di indil ñooñu euh, ñu mën a fexe ba trouver leen un cadre wala bokk de cadres ya nga xam ne dinañ mën a dundee seen liggéey parce que tey euh, bu ñuy wax impactu production exploitation de pétrole mmh. mais ñoom ñoo si jiitu parce que à travers aujourd'hui li nga xamante ni moom mooy euh, l'impact environnemental ñëpp xam nañu ne installation yi ñuy def ci diggu géej mhm. dafay dàq jën yi donc mool yi suñu mbokk nappatkat yi nga xamante ni ñoom ñooy dundee géej jot na état euh, wax ak ñoom waaye tamit rassurer leen te loolu contenu local bi ñu dëgmal prétexte bu wér la ci euh, beneen aspect bi nga xamante ne bi ma dégloo la chef de l'État itamit dese naa ci am lu ma satisfaire mooy dañu jëm ci production de pétrole ñu jóge fan yi passé si li nga xamante ne moom mooy coowul euh, les rapports cour des cour des waaw dañuy toogaat ba beneen rapport fekkaat ni fi dañuy jot na ne peut-être buñ ko cambarul daal wala waajal ko bu baax fa ñu jaar ca covid ba exactement fa lañu jëmaat ci pétrole fa la ñu jëmaat c'est évident maanaam tey réew yi nga xamante ni yëpp dañuy waajal pétrole waajal gaz dañuy mettre en place des procédés d'évaluation de leur production parce que bu leen fàtte ne dafa am ñu ñu àndal. ndax da ngay ci liggéey boobu ndax ñu. fa laa jëm dañu ànd ak ay multinationales ñu xarañ lool ci liggéey bi. yàgg ci liggéey bi yàgg ci lool. et expérience wane na ne si yeneen i réew def nañu ak ndëngate ba jël ci alalu réew ma te te te te te waa réew ma yëguñu ko. boo jëlee tey. réew mu mel ni Burundi. boroom xam-xam bu ñuy tuddee euh, euh, Janvier Désiré Nkurunziza di économiste bu bu bu bu bu bu ràññeeku dafa ñuy xamal ne tey ci wàllu or bi nga mm. xamante ne réewum Burundi am na ko bi ñu saytoo lii euh, nga xamante ni multinationales yi wax nañu ne ñoom moom la ñu jëlee foofu jaay ko le reste du monde ak lii nga xamante ne waa reste du monde wax nañu ne moom la ñu jëndee ci <laughs> day mel ni euh, on est passé du simple au double. différence bi différence bi mënoo ko contrôler. c'est extraordinaire donc ndëngate dugg na foofu. nga demati itamit dellu tuuti ci ginnaaw histoire diggante deux mille euh, quatre-vingt-dix-sept autant pour mois deux mille deux mais Shell jàpp nañu ko épinglé nañu ko. kuréel gi nga xamante ne moom mooy saytu lu jëm ci loolu épinglé nañu ko ci wàllu yokk euh, xayma yi mu defoon ci ressources yi mu amoon lu autour euh, pour cent ba ñu amandoon leen cent vingt cent vingt millions de dollars. Mm. donc loolu c'est du factuel lu am la. ba tax na loolu la ñuy ragalal suñu réew. moo tax boroom xam-xam yi intellectuels yi comme ni nga ko wax dañu war a jóg nag jël seeni responsabilité wax euh, bu ko defee. débat bi nga xamante ne moom moo posé wu mu doon débat ba nga xamante ne mm-hmm. dafay élevé wu ñu wax ci li nga xamante ne moom mooy développement wu mm-hmm. euh, beneen aspect bi nga xamante ne dama siy ñëw itamit très rapidement ndax daanaka waxtu wi ñu ci waaw ma maa ngi siy jéglu waxtaan bi moo am solo <laughs> mm-hmm. euh, te itamit dañuy waxtaanee xam-xam dañuy waxtaanee xam euh, beneen aspect bi bi mu déggoo le chef de l'État itamit tey dafa am lu am solo mooy gaa am nañu pétrole waaye ana naka la ñuy def ba nga xamante ne pétrole boobu ñu am wax dana mën a dugg ci li nga xamante ne moom mooy euh, besoin d' industrialisation wu réew mi. parce que mmh, itamit diversifier l' économie. mais mais c' est la clé c' est à dire que aujourd'hui tey am pétrole rek. c' est pas une fin en soi. Mmh. boo xamul naka nga ci def mook ñàkk koo am benn la. exemple Nigéria laa lay jox. Mmh, Nigéria aujourd'hui ils sont assis sur une mine d'or une mine de pétrole. et amalu leen njariñ mm. pourquoi parce que en termes d' infrastructure politique infrastructure amuñu ci dara dafa am lu tubaab di wax from pitch port from pitch to port mm-hmm. mooy dañuy jëlee ca euh, teen ba yóbbu ca port ba donc création de richesse amul ci réew mi. Mm-hmm. donc création emploi du am du am benn jeexital ci waa. même essence ça dañ koy jéggaane euh, dañu koy jënd ji. Mm-hmm. alors donc ba tax na tey ah, suñu réew itamit war nañu politique de diversification mm-hmm. boobu ci wàllu orientation stratégique ñu taxaw ci euh, Georges ci wàllu boobu tey boo seetloo pour confirmer la loolu boo seetloo tey juróomi dëkk yi nga xamante ñoom ñooy. en dix secondes en dix xibaar yaa ngi ñëw. waaw ñii di produire pétrole ak gaz. tey boo seetlee top cinq bi ci pétrole mm-hmm. ak top 5 bi ci gaz bi nga comparé ko ñi nga xam ne ñoo mm-hmm. gën a dàqanduwul da ngay gis ne euh, euh, ci ci ñeent ci ci réew yooyu nga xam ne ñoo gën a dàqanduwul ci Sénégal ci Afrique mm-hmm. amuñu sax pétrole ak gaz Maroc exemple la ci Maroc moo si jiitu. jërëjëf lu ñu ci amul lu ñu ci loon ci waxtu daanaka jeex na Abdou Lahad euh, di euh, njiital mouvement politique euh, yeeslu jëm ca kanam nekk responsable politique nekkoon candidat ci élection locale yi ñu weesu ca Tëngéej jërëjëf Mouhamed Aliou Mba nuyu ak ziar soxna Naata mbay ak ñemu àndal ca TFM ñu yendook jàmm.